nit ci boppam. ko xamal ko dundal ko jox ko ba dundam mu am conscience xalifa la àndal ñun ñii xalifa la àndal ngir mottali ñoom ñooy jàppale Cheikh Baaba mooy mooy genn wàllu béykat yi ñëw nag ci dëkk di dox di bàtt li mi di tuddee dox mbokk ñu tuddee ko mottali yéene mottali yéene dox mbokk nag ñaar ñu ànd lañu parce soo nee askan wi réew mën a eh, mm, tax lu mu wër na ni réew mi nga xam ne mooy bi ñu bokk ay nit yëpp nekk moo ñu soxla di dox mbokk lu war la nekk li mooy mébét bu matul woon mais lii matul ak liy dog yàlla doon na en tout lañ ko jàppee noonu lañ ko gëmee moo tax bi mu ko dogee ndog-ndog la ñu def ci la fay lifu nit ak yëfu jaam ba mu jeexee ñu dooraat fa mu yemoon ñu dooraat continuer am yàqim nag ni yàlla dana mottali incha allah loolu la ñu gëm moo tax ñuy dox di nemmeeku yéen ñi suñuy kilifa suñuy wayjur yéen ñi suñuy sëriñ ak nit ñëpp nag parce que nag dañu ñëw ci yéen pour ziar pour nuyoo pour ñaanal leen yàlla ba leen fi dëgëral seen nekkin mais sàkku ñaan ci yéen parce que nag yéen li leen yàlla jox joxuñu ko li tax nit ñi di ñëw ci yéen mom moko ko xam donc lolu motax ñu nit ñuy ñew di rot ci ci yeen donc euh, donc lolu daal mo doon solo tank yi parce que li ñu jugmal askan we tax te yeen yeen na togal askan ni ñu ne nañ ñëw sàkku ci ñaan lolu daal mo doon solo tank yi deug yalla di la gërëm nag ci terre bi ah di lu aussi sédé bi nga xamné mom la nit ñi sédé ci yow ci sa tour ci sa toogin sa nekkin ci askan wi yàlla na ko yàlla gën a dëgëral sàngala la malaanu sutura may la wér ak wér le eh, wax dëgg yàlla di ñaan nga nuyu ñu suñu kilifa suñu waajur mi ngi fi toogal muy sëñ Muntaxa yàlla yokk wéram ak talam ak manam parce que dundam moom lu am njëriñ la ci Sénégal ni mu toogee léegi moom ñun ñëpp koy tiitaroo ko bokk donc voilà Sénégal li doon tànk solo tànk. dañ koy gàttal rek ndax wax naa sëñ bi ni ko mm. yegg si ngeen ba noppi mm. moom nii dama ko bi mu waxee dama ko ne mu ñuy ñu fii nañ dem ca sëñ ba rek maa moom ma ni rek nañ fi aw nga ñëw ah, ah, waaye damay sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant ñi nga àndal moom Cheikh Mbacke bi dañ xamante yàgg na kii nag waajuram moom suñu waajur la dañoo yàgg looloon ni ngi Baye Mbaye bu yàgg yi Baba Faye mi wax Mbaye Touré sama doomi ndey ma ne ko bokk benn daf ñoo boole woon ñi benn te xam nañ seen diggante bu baax man moom a njëkk a nuyoo léegi yow buntu kër buntu kër sëñ Bass Abdou Khadre ah, dëgg la sëñ Abdou Khadre dëgg la defal ma fa teraanga xam naa yow doo doo jàpp loolu ndax mbooloo waaye man fa laa la waaw ba ñu may bay bay eh, nuyoolee rek dañoo daal di dem ñun waaye danga ngaa daal di yónni ndaw defal nu taraanga boo xam ne wax dëgg xaaruñu ko woon ku loolu itam nag sa yar sa teggin eh, nite ndax nit moom baax na loolu waaye nite dafa am solo ndax xam nañ say jaar-jaar bu baax a baax boo nitewul woon mën ngaa defe neneen loolu lépp xam nañ ko ci yow ah te bu nag buñ dee wut ku ñu teg ci réew bi comité moo ñu ci gënal wax dëgg yàlla tubaarkalla kon nag li ñu amul mu ludul moom daal muy ñaan incha allah danañ la ko def li ñu amul ludul moom muy ñaan incha allah soob yàlla yàlla defal la ndam jàppale la musal la fi nga jëm dara bañ laa dog damaa xam ne bu ma demee ci sëñ bi maay waxaat bu wërtuwul mbaa bu waxee danaa waxaat moo tax ma yemale ko xam naa la bu baax te jàpp naa la bu baax keroog laa ndax teranga du teranga ku la ko ji rek mënatoo koo fay rawatina mu njëkk lu ko ji te keroog nga ma mas a gis defal ma teranga ju tol noonu wax dëgg

parce que suñu ànd bi Mbàkke àndu xale la ñun ñooy seen mag ñooy sax seen nijaay mais non lañ ko tànne parce que yéen ñi ngeen xam ni yéen am vision ci ëllëg xam ngeen ni ëllëg tay la te tey jooju moy ñoom ñi motax ñu ñëw fi and ak ñoom di la nuyu di la ziar di sàkku ñaan nga di suñu nuyu suñu ziar ak suñu ñaan suñu wéyjur suñu kilifa suñu sëriñ sëriñ Muntaxa di ko ñaanal yàlla yokk wéram yokk talam yokk dalam parce que ñun ñi nekk ci arène politique bi xam nañu ci nan la tooge te taxawe jàppale réew mi na yàlla gën a dëgëral tànk yi bàyyi ko fi ak wér e di la gërëm di la sant aussi ci lii parce que lu rëy la nga soxla sa kilifa mu consacrer le temps c'est important surtout nag su fekkee da ngay dox lu am solo. ko Mbàkke ñu gërëm la sant la dëgg yàlla lii moom lu rëy la pour ñun ñun ñu bëggoon ko xale yi dox ko Ablaye ñoom ñoom ñëpp ñu dox ko nga defal ñu jërëjëf ah tànk yi nag tànko ziar la ak nuyu tànko ziar suñu kilifa. ziar suñu wayjur ziar suñu sëriñ parce que looloo am solo ah, ñu di la gërëm Mbàkke donc ma del si ci gërëm beeg sant bi ci ni nga ñu recevoir rafet na jekk na et vraiment dal na xel ah di la wax ni tànk yi tànku sa njaboot la yuy bëgg a liggéeyal yéen ñi nga xam ne yéen ay sookalu société bi dama koy wax toujours ni li am solo mooy réew day am fu muy wéeru particularité réewu Sénégal mooy réewu ñu gëm yàlla lañu muy jullit bi muy katolik bi ñun ñëpp gëm yàlla et comme que loolu lépp nag ñun ñëpp ko bokk loolooy sookalu société ñaanal la wér ak tal ak sant ak tal ak sutura su bëree bëri ah sàkku ñaan comme ni ma wax nak euh, rew mi motax ñuy dox bëgg ko liggéeyal bëgg liggéeyal askan wi ñew di leen ci di tataan di rot di xam parce que rew mi fu mu tollu ku melni ñun nga xam ne xam nañu socialiste xex man depuis 2000 ma ngi opposition musuma dem fenen 2000 ba 2024 ma ngi opposition mais xam nañu li ñu def ñun socialiste ak Abdou Diouf la ca manqué ak la ca baax xam nañ li Wade def la ca manqué la ca baax ba makk nii li mu def lu ci manqué lu ci baax soo mu expérience boobu yàlla may ñu dañu bëgg a tiire pour liggéeyee neneen daal di consolider ñoom lépp lu ñu def lu baax mottali li ci des mais indi ay changement loolu mooy suñu yéene te loolu ñu jiital ci rek askan wi nit ñi li gëm mooy ñun ay surtout Senghor lañu doomu sengoor lañ li gëm mooy ku bëgg a développer réew nit ña fa ne daañu yeeweeku da leen yee di leen jàngal di leen xamal di leen dundal danga nga leen manal te ba ñu mën moomal seen bopp donc nit kooku ñu jublu te yéen nit ñi rek di jublu ci yéen moo tax ñun ñu yaakaar ni on bien placé pour def loolu bi ci des mooy réew mi sëñ bi yàlla def na ci taw feex ci seen ñaar ñu ngi li fi Sénégal toll falaay Abu Dhabi ak i émirat ak i toll woon ci am am am am li ñu am li ñu am depuis ces dix dernières années mu feeñ fi fii fukki at su Sénégal développé wu nag bay boo ñun ñëpp ngeen dàq ñu sànni <laughs> non loolu mooy dëgg gi tous ces pays-là, c'est en 10 ans qu'ils se sont construits avec les ressources euh, yi nous am suñ ko rek parce que c'est le moment c'est le pays de tous les possibles donc moi nous sommes ñaan ni su ngeen ñu nous ah, de di ngeen gis ni dinañ leen dooleel parce que yéen taxawu askan wi dooleel diine di parce que man loolu laa gëm nag bu gëm mooy c'est pas parce que dama nekk ci kër soxna mais dama gëm ni dooleel leen mooy dooleel réew mi dooleel nit ñi jox nit ñi li ñu sox loolu daal mooy suñu yéene ak suñu bëgg-bëgg moo tax ñu ñëw di la taral suñu loxo di sàkku ñaan voilà Mbacke wax ji gudd mais dama bëggoon expliquer la parce que xam naa sa taxaway xamna fa nga féete xamna fa nga bok na ngeen fa nekkee parce que yéen génération bu ngeen xamni la il faut que ñun ñu wóolu leen parce que yéen a ñuy accompagner li xam ngeen xam li ñu mën la ngeen mën li ñu jàng ngeen jàng ëppale wuñ leen dara da ngeen féete fële rek te diñu xol donc suñ leen joxul seen cër ak seen place ñu ngi nax suñu bopp moo tax vaut ma ma noonu parce que xam naa ne li ma wax yaa ma ko gën a xam voilà Mbàkke sàkku ñaan rek pour que yàlla moo yéene ji jërëjëf. Ah, ah, ci ci média yi. ak hmm. ci dëgg la. di sant ñëpp ci teewaay jooju nag loolu la ñu loolu la seetlu ci yow bu yàgg ba léegi euh, yar ak teggin ak tey yaakaar naa ñu njëkk a présenté fii ci ngeen ginnaaw. Mm-hmm. ci kër El Hadj Cheikh Touré. Mm-hmm. waajur Mbaye Touré ana Mbaye. Mm-hmm. ñoo ñëwul. waaw waajur Mbaye Touré yaakaar na boobu la nelaw waajur wu jigéen waaw ñu foofu lañ njëkk nuyole waaw nga jël fa kàddu yu yu am solo waaye kàddu yu teggin nag ci geste bu am solo boo xam ne nii am na ku la njëkk a wax koo xam ne nekkoon na ci pouvoir Ablaye Wade waaye ba muy wax dafa toog waaye yow bi ñu lay joxee parole da ngay taxaw am na ñu la wax ne toogal nga ne déedéet boo nekkee ay kilifa booy wax da ngay jug taxaw ñu gis la loolu daf ma marqué ba léegi. waaw loolu daf ma marqué loolu day wone yar bi ak teggin yi ak joxe cër gi eh, ak eh, xam sa bopp waaye xam saa su ne ñi nga nekkal ak fi nga nekk ak di bàyyi xel loolu lu am solo la lu rëy mi soxla la te loolu mi ngi ci yow. Euh, yaakaar boobu la ñu njëkk a njëkk nuyoo bi ñu nuyoowaat dama dama tukki woon dem dem Brésil jël Royal jaar Casablanca xaw ma foo jóge woon xàmmee woo waaye man nuyu naa la bi ñuy dugg ci avion <laughs> ci co ci cofeel googu rek waxuma la ma doon waaye nuyu nuyu nuyu naa nuyu naa la loolu jàll yi ñu xam nañu tout ce parcours fi nga jaar depuis ñu xam la ci politik ci parti socialiste ba ngeen dem ci opposition bi waaye nga góor góorgóorluwaat ba am li nga am ci ci politique doon maire dakaar def ci liggéey bu am solo xam nañu la dafa jële loolu ay détail la <laughs> ay détail la waaye daal ku mel ne yow réew mi soxla na ko ndax réew mi dafa soxla njiit njiit lu njiit lu xam réew mi njiit lu xam waa réew mi ndax Sénégal nag dafay réew mu xaw a jafe yore ndax dafa bari ay sensibilité euh, rawatina ci kër diine yi euh, te kër diine yi dafa am comme ni nga ko waxee dafa am dafa am solo ci réew mi ndax kenn ku nekk ci ñun rek. am na fa aju am na ko am na ko yaakaar ñun ñëpp suñu borom lañu yaakaar ci lépp waaye nag suñu borom wàcculul boppam dafay yebal ay yonent ba ci Seydina Mohamed ginnaaw Seydina Mohamed it euh, xulafaa rashidin nekk fi di fi awliyaaw yi bu samaan yi ba ci suñu mag ñu baax ñi ñoom ñëpp nekkal fi suñu boroom di tracé yoon wi nga xam ne moom la ñu war a jaar Euh, comme sunu borom wàcculul boppam nag dafa am ñu ko fi nekkal ñooñu dañuy mat a bàyyi xel. Mm-hmm. kenn ni nga ko waxee kenn ku nekk ci ñun muy jullit muy muy jàngu bi dafa am loo gëm am loo yaakaar yaakaar naa ne su ñu waxoon Sénégal ñi fi nekk athée zéro virgule nangam pour cent <laughs> waaw te boo demee sax. am nañ bant bu ñuy buñ teg di ko di ko kii bant boobu boo leen ko fonkalee rek ñu fonk la waaw <laughs> kon dañoo soxal nag ku ku ku ku xam loolu te te fonkal ñu ko ndax ñoo loolu loolu loolu rek lañu am kem ni ko waxee euh, Sénégal soxla na la kon li ngay dox ci ci réew mi duñu mën lu ñaanal la وصلى اللهم صل وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما صلاه تدعو تدعو تعالى جميع الخيرات والبركات والرحمات وجعلنا الليل xamal ko dundal ko jox ko ba dundam neex mu am conscience ni moom nit la bu nite xalifa lañu àndal ñun ñi xalifa lañu àndal ngir mottali yéene xalifa lañu àndal ñun ñi xalifa lañu àndal